ay fan ni ngi nii tey ñi fare Yoff Tongoor bu ñu jógul une heure du matin du am ndox. ndox mi moom metti na trop une heure du matin ngaa yeewu bu huit heures doo amam ndox boo laa am boo jógul une doo amam ndox ñu ngi ñaan dëkk ku ñu dimbali te yàlla rek tax ndax ñun sonn nañ ay jaboot lañ te jaboot ju nekk jaboot nga. booy fóot am ndox nga yor booy taal moom nga yor booy ndékki moom nga yor loo mënti def rek moom nga yor. nag ñàkk na ndox mi moom sonn nañ si torop torop torop ay une heure du matin la ñoo jóg ba 6 du ñu am dara suñu ubbee robinet bi mu xel du tëj ba léegi si mujj. mu nekk ab coono dul jeex rawatina ci ñi nga xamante ni seen yaram neexul. saa da nga koy root ba pare nga def si kaasu eau de sa kii saa ñu eau de pour nga mën ko utiliser wu te ñun wéruñu xam nga am na genre nit yoo xam ne sama classe bi ñen nañu seeni yaram neexul ay jabetit a ngi fi ab jabetit mënul root mënul yanu boo yanoo boo demee ba ñëw sa dënn du baax nga ñëw sol na boo amulee la jàppale nag yow nan ngaa mën a yanoo. depuis ba ni mel commencé nag ñoom yëguñu ci taxawaay société bi ñu dénk wàllum ndox fii ci ndakaaru kenn ñëwul fii kenn ñëwu fii geesul si sa ginnaaw biteel yaa ngi nii da xëy jënd biteel 200 ngaa jënd dem ranka saa nga rang pour nga root kii di sotti ñu pousse say biteel tegaat yeneen i biteel doo am boo amulee nga oññaku waat dem si pompe yi te pompe yi xam nga neexul a toog te utiliser fuut kese nga si mën a def ak raxas. donte sax gis ndox jafe na leen lool waaye teewul seen facture daara wàññiwu ci. ñu ñaan ku ñu jàppale ndax ñun sonn nañ trop surtout fii si Tongoor ñun ñu dëkk Tongoor sonn nañ trop chaque jour génn wàll gi day xel génn wàll ñun suñu robinet cinq jours ci tey amul ndox te booy fay dërëm doo ko desee loolu pour lan la. amul benn changement na mu meloon rek la mel. ñu ngi ciy woo nguur gi ak seen maire ngir ñu jël ci ay matuwaay. nu mu gën a gaawee.